bonjour salaamaaleykum. Ah, waaw maaleykum salaam na ngeen fi alhamdulilah monsieur képp si sa foofu lu waraloon Firi wala watigo c'est la même chose Firi ak Tigo la monsieur. gi bu baax rek. ñu ngi koy bi wax ak gan yi dem dañuy dem ba Touba mais dañuy mais jëm duñ ko xam quoi ci bi da ngay ñaanal numéro bi ngay jot ko na wa ngeen japp lañu ci lool bu baax a baax daal waaw loolu rek waaw loolu rek la amon luma lo la leen doon woyé jere ngeen jëf parce que Touba ña fa nek ñep ñep ay tigo lañu yor ñep goor ak jigen mag ak ndaw wa wa yeen ngeen japp lañu ci réseau bi bu baax dal daal waaw ngir ngir jëmmi sëñ Touba rek waaw baax na jërë ngeen jëf kontaan nañ si yéen kontaan nañ si yéen bu baax a baax bonjour salaamaaleykum. Ah, waaw maaleykum salaam na ngeen def. ñu fi alhamdulilah monsieur képp si sa wala wala sa wote. waa wala waa c'est la même chose Firi ak Tigo la monsieur. ngi gi bu baax rek. ñu koy waajal waaw. waaw yéen ko war a de wàllum réseau bi laa laa bëggoon a wax ak yéen wàllum réseau bi sa Touba. parce que gan yi dem dañuy dem ba àgg Touba mais dañuy mais fan fan jëm duñ ko mën xam quoi ci wàllum réseau bi da ngay woote ñaanal numéro bi ngay jot ko na. waaw ngeen jàppale si lool bu baax a baax daal. incha allah waaw loolu rek amoon lu ma la leen doon wooyee jërë ngeen jëf parce que ti Touba ña fa nekk ñëpp ñëpp ay Tigo lañ yor ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw. waaw waaw yéen ngeen jàppale ñu si réseau bi bu baax daal. waaw ngir ngir jëmbi sëñ Touba waaw baax na jërë ngeen jëf. kontaan nañ si yéen bu baax a baax.